Père Babou maa lay nuyu bu baax di la siyaat président euh, tey dugg ngeen ci woote bi nga xam ne dajale nañ fi képp kuy promoteur euh, lan moo uti ci biir. ba xanaa jàmmoo ak euh, nit ñi namm làmb promoteurs yi soxla financé seen xaalis. ñu bëgg xool solution boo xam ne danañ ji tëgg làmb promoteur du gaañu mbër du gaañu ci loolu rek lañ doon waxtaane pour jàmmoo àndandoo ànd ak promoteurs yi ànd ak euh, mbër yi ànd ak journalistes yi àndandoo ñun ñëpp ñu ànd defar ko xool nu mu rafete ñu defar ko bokk ko kenn bañ jooy. Hmm. am na ci yeneen kuréel goo xamante ne dañ fay ñëwoon ñuy waa arène biñ ñëwee ñu génnee leen ci biti mais am na ci ñoo xamante ne nee nañ ñoom du ñu affilié parce que euh, mbër yu ndaw yi nga xamante ne ñu ngi seen écurie dafa mel ne dañ leen a bedd ci waxtaan bi. waaw xam parce que fii waruñu promoteur rek lañ fi wowoon comme promoteur lañ fi wowoon képp ku wuy ku wuy boo ñëwee it da nga da nga def lu la neex mais waroo waroo ñëw loolu ñoom loolu ñu wax noonu ñoom la engagé ah. waaw. yow dama fi ñëwoon en tant que man li ma ñëw en tant que bari na. man nekk naa membre CNG. en même temps président manager yi en même temps ba ñuy waxtaan ak ministre bi demoon naa kon euh, fu ñu jëm dama fay jëm. Mm. ñu lay jaajëfal bu baax. merci beaucoup.